Euh, tey dañ fi ñëw vraiment di naqarlu li nga xam ne dafa xew également woon askan wi lu ñuy dund woon bi nga xam ne depuis ñaari at ñu ngi ko fiy dund parce que dañu commencé woon benn formation professionnel parce que ñu ngay gis ñi ñëpp ils étaient dans des services euh, biñ fa jógee at mi concours ñëw fii te d'habitude formation yooyu professionnel fu ñu ko doon gis chaque fois day am loo xam ne dañuy am benn accompagnement muy lu mel ni njàngale bi dañ la ciy gunge mais bu weesoo njàngale mi également ku ne xam na ne ku nekk fii Dakar day metti même bu dul Dakar sax dans les régions nga nekkoon service fu mu mën a doon ci Sénégal boo déplacé wu dajale ni ñi liñ gis depuis liñ xam formation professionnel boo koy def am na appui boo xam ne dañ la koy def muy genre bourse wala ñu ko pécule destage mais également booy pare formation am na lu ñu lay jox parce que danga war a bind mémoire présenté ko te pour bind mémoire dafa am juntuwaay muy laaj day laaj xaalis mais également day laaj ñu mel ni ay logistique te yooyu yëpp amu fi yooyu nag euh, dem nañ demati demati demati demati.